di siyaare jaajëfal mbokk yëpp askan wi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax baax baax te di leen jaajëfal di leen wax ni tey jii dañoo ñëwoon fii ci Daaru Sëy waa dëkk bi yëpp génn ñu jëmbat ay garab te garab yi li waral mooy Daaru Sëy ca kanam ñoo am yëg-yëg jóg taxaw di roy Touba ca kanam seen premier acte ñu ni dañuy jëmbat dëkk bi yëpp ay garab ndax naataange mooy njëkk lépp lu mën doon ñu xalaat nii kon suñ première ak nañ def dëkk dëkk bi tam ñu séddale ay garab ci kër yëpp ku ci nekk jot nga ay mango jot nga ay corossol am na ay flamboyant am na ay tàndarma yépp jënd nañ ko muy lim bu takku ñu jëmbat ko ci dëkk bi ak ci pénc mi yépp waaw di sàkku nag ci askan wi ñëpp buñ gisee lii ñu xam ni daal Fay ca tàmbali na te commencé na liggéey kon ku ci nekk rek lu la ci laaj nga xam ni fii lañ koy def waaw commencé nañ amul tànki ginnaaw tànki kanam daal mu sañoon rek moom lay am jëm kanam. ñu ngi laaj ba xam ban fànn ngeen ko seen i jubluwaat boo xam ni ginnaaw bi ngeen jógee ci garab bi wax jaay waaw daal say ca kanam bari na ay projet mhm. waaye dañu gis ni. Mhm. pour ñu defandoo lépp du yomb. Mhm. bilan dañuy def premier acte deuxième troisième. parce que booy dugg Darou Seye tableau yi nga xamante ni mooy wane ni fii mooy Darou Seye defar nañ ci ñaari tableau. yoo xamante ni booy dugg Darou Seye di ko jot ñu bind ko bind mu rafet alaaj ji bi moo commandé defar ko muy nou nouveau génération yi mm-hmm. bu ñu ko monté ñëpp di leen xam ne lii moom lu Mauritanie ñu bind ci Darou Seye mu nekk lumineuse guddi sax boo dee dawal oto boo ko tàppee day day day day day leer mm-hmm. waaw loolu tam ci la bokk deuxièmement bëgg nañ arrêt arrêt boo xamante ni képp kuy voyager wala ngay ñëw fa ngay wàcc arrêt boo xamante ni day ne ci wetu tali mm-hmm. loolu mooy deuxième loolu nag dafa xaw a takk tuuti ci xaalis moo tax dañ ko bëgg a àndale tuuti bu lii paree ci loolu lañ jublu loolu mooy waaw xam nga boo xool bu njëkk dan daan root ci ay teen ndax lépp daa suy ci kanam waaw dan daan root ci ay teen mhm. ñu mitti loolu ñu bëggoonum ndox yàlla womatal nañu ko ba dëkk bi yëpp am na ndox mhm. ñu bëgg itam courant dëkk bi leer ñu ko doon def ay salaire ak ay group ak lu ne ñu def mhm. ndax am na bés boo xamante ni groupe lañ jëndoon monté ko fii nit ñi di fay lampe deux cent cinquante ñu sonn ci loolu. ñu bëgg courant yàlla indi na ko. léegi nag li ñu bëgg nag fi mu ne nii mooy tali. léegi ñu bëggoon yàlla saafara ko. li teg devant fi mu ne nii mooy tali. bi daal ni ay moroom moom saafara woo ñu ngi ñaan yàlla suñu moroom mu saafara ko balaa yàgg. ñu ngi daal ñaan képp koo xamante ni xam nga koo xamante ni ci wàllu tali lay yëngu rek. ñun suñu tali bi ñu ngi ciy sàkkoon ndimbal ñu ñu ñu loolu wax dëgg yàlla suñu bëgg-bëgg wax dëgg yàlla dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko ku ci sa buntu kër di ubbiku ak ku ci sa buntu kër ubbikuwul ca nga bokk ci askan wi rek jàppal ni Darou Seye bu bu ñuy lay tudd di tudd Darou Seye rek ci nga bokk bul xool ni man Darou Seye la sama buntu kër di ubbiku wala Thiès lay bokk wala Tamba lay bokk wala fu mu mën a ubbiku fu mu mën a doon rek da nga bokk ci askan wi ñu lay tudd di tudd Darou Seye sagub Darou Seye sab sag la ndamal Darou Seye sab ndam la kon nag 1000 francs yi la ciy laaj chaque weer daanaka di taxaw di ci xaar sax du yoon na ko ñëpp maasale rek chaque weer nga yëkkati 1000 francs dugal ko ci compte Cheikh Seye Orange ne wala am na blog yu ñu defar dugg na ci askan wi yëpp nga dagg rosi 1000 francs waaw loolu daal ñu ko ñëpp waaw ñu ngi sant ñëpp nag di jaajëfal ñëpp nag di xam ne fii rek la ñu am wax dëgg yàlla jaajëf ñëpp.